alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala cher na mun benn bur bu nu war a jaamu bu dul moom noo ngi baalu àq ñëpp te di leen baal àq cay ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñun ñëpp bokk yi sunu xutba tey mooy azzalazil mooy yëngutuk suuf gi nga xam ne am na fan yi ci suñ réew mi maanaam ci àdduna bi laa bëgg a wax ñu gis ko ci Turki gis ko ci Suuriya ak yeneen dëkk muy màndargam bisub penc ci ci bi yonent bi salaa waxoon muy asraatu saa ginnaaw bun jaalee suñ mbokk julli ci faatu yépp di massawu président Erdogan mi nga xam ne mooy raisul jumhuriya bu réewum turki ak di masawu waa Suuriya ak yeneen dëkk yu mel na moom te xew-xew yooyu am ñu xam ne fan yi ñu génn yëngatu suuf gu metti am na ci réew yooyu ma tudd ba mi junni doomu aadama faatu ca bokk yi loolu nag liñ ci war a jàngate mooy mooy màndargam taxawaayu bis penc ca loolu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ñu ko jàngaloon bokk yi tiit jot na jubli yàlla jot na bàyyi caaxaan jot na jaamu yàlla jot na sax ci li yàlla santaane jot na suñ borom bari na doola ca du tàggoo ca li am ci réew yee kat mën na am ci yeneen réew ca suñu boroom du wax bi kañ la ak fomu kon kenn ku ci nekk ci ñun dubluwaatal sa boroom subhanahu wa taala ca réccu li nga weesu loolu rek moo ci am solo mbokk yi xam ngeen ne saa jot na maanaam bu jotu timi jagasi na ndax bari na ci ay mandarga lu suñ boroom subhanahu wa taala waxoon yonent bi sallallahu wa sallam na ko mandarga yooyu fu ngeen ko gisee wala ngeen koy dégg xam ngeen ni màndargam saa la te ñu gis na jëfan yii yëngu-yëngu suuf yu ànd ngelaw lu doy waar mabbal ay taax rey ay doomu aadama yooyu muy yenn ci màndarga yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bu demee ci xadis bi Abu Hurayra di nettali dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na balaa saa taxaw suñ boroom dafiy jële xam-xam jële gi fi suñ boroom di jële xam-xam mooy lan day faat boroom xam-xam yi ca ku ne xam na ne ren jii ñaata ci ay boroom xam-xam la yàlla yóbbu barsaqal muminin kenn xam mu nu mu kon loolu benn mandarga la ci bari na ci ren jii boroom xam-xam yu amoon aw tur ñu leen daan dégg ñu jàngal ñu bari ba ñoo ñay di jàngale ren jii suñ boroom faat na leen te boobu mooy bi jiitu ci xadis bi beneen bi ci des mooy bari gi suuf di yëngutu ku ne xam na ne jamono ji ñu toll ak lii daana am waaye nii mu jekk-jekkee di amaat am na kon lu muy wane yoo xam ne jullit yépp war na cee bàyyi xel beneen bi ci des mooy jegeyoo gi nga xam ne moom la jamono di jegeyoo at mi léeg-léeg nga dégg nit ne at mi dafa gaaw léegi at mi gaawaayu at mi moog weer ñooy tolloo gaawaayu weer moo semaine ñooy tolloo gaawaayu semaine moog bis ñooy tolloo loolu bokk na ci mandargay asratu saa ca bokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci bokk na ci ba tey fitna ju bari bokk yi fi mu toll nii waxuma réew yi nga xam ne mooy réewi tugal yi waaye suñ réew mii dong fitna ji ci nekk kenn xamu nu mu kenn ñemew ci ta dox guddi kenn ku kuy dox yaa ngi xalaat danañ la rey balaa bët set démb rek ci xibaar yi yoonu Cees wii fekk nañ fa koo xam dañ koo rey sànni ko ci biir àll bi ba mu ba néew bay tàmbalee yàqu ci xamuñu ko rey fan yee leen fi dégg imaam buñ rey sànni ko ci biir ndox mbokk yi yooyu yëpp mi ngi am suñu réew mi réew mii fi mu toll nii jun julli li ci dund ñu ci bari seen bakkan a nga ci xottu gerte ndax sécurité bi doyatul fit na ci bari na. ñi war a wax wax nan lan war a wax ñani waxal ñoo déggul lan leen wax ca al fitnatu la laana allahu man ayqadaha yonante bi neen fitnaa ngi nelaw suñu borom mi ngi rëbb ku ko yee démb rek dëkk bii di mbàkke bawal fitna defee judd kenn mënut a noyyi ci ci biir marché bi grenade yi ñuy téere ak gimane yeneen yu demee noonu bokk yi kon fan leen jëmati ca li ci kanam buñ ci waxul mooy gën a mooy gën a garaaw mooy gën a dansé ca nag ku toog sa kër naan bokkuma ci wala nangama nangam bu fitnay dikk lakkaale sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal ku toog ku war a wax waxoo ca naan ñi ñii danoo nekk ci nangam ak nangam wallahi bu fitna dikkee du la fa bàyyi faw sa njaboot dana ci bokk wala ñenn ñoo xam wala say bokk kon ñi war a wax donte wax nañ lan war a wax it waaye ñen wa ñaniy waxalit dégguñu la leen wax te ñu bàyyi ci xel ca ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi di xëccoo réew mi nan bàyyi xel ne am na ñu ko yoroon ñooñee juge nañ fi ñenn ñi faatu na ñenn ñaa ngi dund dana juge ci seeni loxo jëm ci ñeneen yoxo ti mi danañ fi juge jëm ci yeneen yoxo yàlla moom moom nguur mooy seet ku ko neex mu jox qul illahuma malikul mulk tuutil mulk man ta wa tanzi al mulka mimman tasha wa tuissu man tasha wa tuzillu man tasha bi yeddika al xayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla rek kay buur mooy joxe nguur ku ko neex ku jàpp ne nag da ngay toog ci nguur di buum di buum mi bisa ngi ñëw dana la buum buum mi la yaa ngi nga àndal ñëpp loolu nañ ci bàyyi xel yàlla moom moom nguur moo koy joxe lu fi jar rey bakkan amu fi lu fi jar tëj ay doomu aadama amu fi lu fi jar fitna ju metti yi ñun population Sénégal bi ñu dund kenn ñemee wute génn sax loolu amu fi nan bàyyi xel na suñu borom mi mi ngi suñu kanam waaye ëllëg dana ñëw lépp lu waaye def dana dana def sa kanam suñu borom subhanahu wa taala kon fitna ju metti ji ak rey gi metti ji bokkoon na ci li yonent bi sallallahu alayhi waxoon na bokk na ci mandargay taxawaay bis penc te ñu ngi koy gis ci suñu réew mi ñu bàyyi ci xel beneen bi ci des mooy ci hadis boobu mooy alal ju bari ju tuuru ji bokk ji ku ne xam ne suñu réew mi am na alal waaye daa féete boor réew mi am na alal yéen a ngi dégg milliards yu bari yéen a ngi dégg millions bari am na ñu ko yàlla dénk waaye daa fete boor la tax yàlla jox ko ñooñu nag am na ñu ci bari la tax yàlla jox leen ko delloowuñ ko ca loola. léegi nag bu demee ba réew moo xam ne ñi ñi moom alal ñooy téye alal ji ñi amut fu jëm. ñi moom alal ji yor milliards ak millions yi denc ko ci banque bi ñenn ñi ne ci pouvoir bi ne ci pouvoir bi yor alal ju boo léegi ñu jugu fi yéen ñooñee ñëpp alal joojee ñu yor war nañ koo tasaara ci ci ñi moom alal yooyu population bi alal yi population bi bi moo ko moom buñ ko jël di ko jox ci benn côté ca bari na ci alal réew mi ñoo xam ne dafay féetal benn côté mais ngi ngeen nañu ci des bokku ca baadoola moom baadoola la lay doon ku bokkul ci nguur gi sa baay bokku ci sa maam ci dégg nga amoo ci ab lijjanti daani ko doomoo ci alal ji ñun baadoole yi ñu toog di gën a baadoole di gën a sonn rek loolu lu ko waral yàlla rek moo yor kàttan donte doole doole la ñuy jaay bokk yi loolu bokkoon na ci li yonent boo ne bu ngeen gisee yu mel nii xam ngeen ne bi taxawaay bis ci lay mu ñëw fii jamono tollu nag gis nañ ci yu baree bari nag di dëggal wax yonent boobu sallallahu taala alayhi wa sallam ci ay melokaan yu wuutee yoo xam ne ngelaw léeg-léeg nga dégg dëkk sangam ngelaw la daaneel na fa nangam léegi léeg nga dégg ay mabbu yi xew yi barki démb ci turki léeg-léeg nga déggit guerre xoolal Syrie la fa ak la fa xew jamono yi guerre bu taa dakk xoolal dëkk yu mel noonu léeg-léeg nga dégg ay yëngatu yoo xam ne dafay tiital gis ngeen lakk gi am rek daanaka suñ suñ dëkk bii sell bii marché Ocass bii lakk yi métti yi ji lakk ci xamul lenn xamuñu leen lu koy lakk koy bu tiit yooyu yëpp ci asraatu saa la te nit ñaa ngi dund rek kenn ku ci nekk du ci bàyyi xel kon ñu war cee jànge nag mbokk yi ñu war cee jànge jàngi nu am solo mooy lan xam ne yàlla rek mooy aji kattan yàlla rek mooy buur yàlla rek moo am doole kenn amul doole kuwaay waay lu waay jàpp jàpp na yow mii lii moo la may doole amoo doole yàlla képp moo am doole ndax la nga yaakaar na moo am doole bu kon bu neexee yàlla loola ci fa nga ko téye ñoom ñëpp mu ma mu màbbal leen dugal leen ci biir suuf kon su subhanahu wa taala donc moo am doole al qudratu wal irada huwa allahu subhanahu wa yàlla moo am doole nan dellusiwaat suñuy xel ñu nekk ci pouvoir bi nañ dellusiwaat seeni xel te xam na yàlla rek moo am doole kenn ku nekk ci ñoom nañ bàyyi xel na dañ fiy jóge léegi ñeneen ne fi loolu nag bu ñu xamee bu ñu utiliser doole ji ñu yore di ko jëm ci population bi kenn ku ci nekk danga ci amaaq bokk yi suñu borom nee na ma amruhu ida arada shay'an an yaqulu kun fa yakun yàlla nee na man bu ma nammee amal dara dama naan kun fa yakun loolu nekk lii am lépp suñu borom moo nam am ca benn baat lay jëfandikoo kun fa yàkkun mu nekk kun fa yàkkun rek mu nekk loole ñu bàyyi ci xel kon lii am fan fan yi ci jamono ji ñu toll ci réew mi ak ci suñu réew mi ñu nekk ak réew yi ñu wër ak yëngatu bekki bi huwa alqaadirul wahid alfaa'il li maa yurid subhanahu wa taala rek la mbokk yi liñ ci war a jàngaate ba tey ci zilza zalazila yooyu nga xam ne léegi-léegi yàlla def ko yónni ci kéefar yi ak ci jullit yi jullit yi nañ wëlbatiku tuubal seen borom ca bàyyi caaxaan geeg fomi ak moy gu bari gi bari na lu yàlla di teg ci biir jullit yi ci ay bu buñ delluwaat ca biir ci jullit yi lay doon benn ñu topp seen bakkan di deex di def li leen neex bàyyi fële borom bi subhanahu wa taala ngay moy wala ñuy njaalo wala ñuy def nangam wala ñuy def nangam wala ñuy def nangam yooyu yëpp bu amee cim réew wala cib dëkk te suñ borom nam mu ca am ca lu ca namm faaw mu am loo xam ne moom la moom moom la moom lay doxaleeg jullit yooyu kon nañ leen wëlbatikuwaat tuubal yàlla afala yatubuuna ila allah wa yastaxfiruunahu wallaahu gafurun nan dellu tuubalaat yàlla ca di ko jéggulu ca xam ne yàlla ko jéggale la jullit yépp war a màngoo jublu yàlla di ko tuubale ko jéggulu lii xew ci réew mi ak yeneen réew bàkkaar yu bari rek mën na ko waral moy gu bari mën na ko waral ne ci nag lu naqar yàlla mën na ko waral nan leen delluwaat tuubalaal borom bi subhaanahu wa taala bokk yi bokk na ci sabab yooyu mooy yonent bi sansa war na ci benn xadis ne suñ demee ba jël alal joo xam ne dañ koy booleeg alal lu julit yi booba baytu maal la ci jublu nga xam ne la ko indi ci alal ja këf la wala sàcc wala ëpp doole waaye du jihaad nee na bu boobaa na ngeen bàyyi xel ne asaratu saa léegi mu ñëw buñ demee ba kun wóolu dénk la nga jëfandikoo lan la dénk dan laa dénk lan la dénk nga jëfandikoo ko bañ koo jox ña la ko dénk nee na bu ndewee ba loolu am da xam ne asraatu saa ñëw na loolu am na ñii ñu dénk suñu réew dañ leen koo dénk wóolu leen jox leen ko waaye bu demee ba gis ci yoo xam ne sëñ bi jaadootul ña ko dénkoo sañ nañ koo jël covid 19 muy corona bi weesu yéen a ngi dégg xibaar yi fan yi ñaata milliards lañ ci dugal kenn xamul nu mu toll ñëwal ba tikku ne milliards yi ñu ci dugal am na ñun ci sàcc te taalibe sëñ Tuubaa yi def ci lu dul jeex ak ngeneen ak ñeneen alal jooju population bi moo ko dénkaane kon koo de koo wóolu ba dénk ko sa alal def ngir mu def ko ci nangam mu def ko ci neneen lu bokkut ak loolu bu boobaa da nga xam ne asraatu saa am na lu ci am beneen bi ci des mooy ñi yàlla jox alal ñu war a génne azaka ñu ci bari génneetul azaka nan ko war a génnee yonent bi saa sama nee na loolee bokk na ci beneen bi ci des mooy nee na bu demee ba nit ñi di jàng la leen lu jul seen diina ngir jaamu seen borom bàyyi leen xel ne asalaatu saa léegi mu ñëw ci li koy waral ci la bokk beneen bi ci topp mooy suñ demee ba borom kër di topp soxnaam cay mbugal yaayam bokk lu doy waar a goog lu say soxna wax nga ne gonga moo wax ne ngam su maire bi di koy a nga ne maire bi daa bari coow maire bi dafa bañ dafa bañ sama soxna si daa bëgg ma wàcc ko nangam ak nangam maire bi soxna si li mu wax mooy dëgg bu demee ba jamono jooju am mu jug jamono am na asraat chanlab ca loolu ku dem ci kër yi fekk léegi gars yi seen soxna yii ñoo leen gënal seen yaay yi ñu ci baree bari bokk da nga naan lu soxna si wax dëggaay sox maire bi dafa bëri wax soxna si li mu wax mooy dëgg su ndee ba jamono jooju am nag bokk yi asraatu sa am na ca loolu ku dugg ci biir kër yi gis ko ci beneen bi ci des bokk yi mooy buñ demee sa ba sab xarit gënal la sa baay nga xam ne yow li ngay fréquenté sab xarit di ko wax say problème sa baay xamu ci dara bari na ci ñoo xam ne seen baay xamalu leen dara seen alal xamu ko seen i lijjanti xamuñu ko lu am dañ naan ah diw ah xanaa nga laaj diw muy xaritam suñ demee ba jamono jooju toll bokk yi asraatu saa am na te te ku dem ci dëkk bi ci ak ci xale yi dund ah, jamono ji da ci fekk loolu ma la wax beneen bi ci des mooy bu demee ba jàkkee ñu def ko garan place lu ñu neex wax loo fa neex wax lu bokkut ak lu luy defar ak luy jubbanti su boobaa da xam ne leen ci asraatu saa am na bu demee ba xabila yi mooy giir yi askan yi ñu jël ñu yées ca askan ya teg leen ca bopp ya ña gën ci askan ya ñu leen bàyyi leen xel ne asraatu saa bokk na ci waaye bu ba demee ba suñ njiit yi nga xam ne ñoom leen jiital jox leen suñ réew yi dégg nga wala jox leen yeneen i poste wala yu mën a doon ñooñee nekk ñu ay arisé mooy ñu ñu bon ñoo xam ne yërëmun jaam yi seen bopp rek lan fi nekkal ñoom nan am nan dundu seen bokk seen i seen i njaboot nan am nan dundu ñeneen nekku seen yoon nekku ci ñeneen suñ demee ba réew mi toll foofu bokk yi na ngeen xam ne ñu ngi ci asraatu champs waaye buñ demee ba tey nit da nga koy ragal di ko jox sa alal ngir ragal mu wax la lu ñaaw am na ci bari na ci ñoo xam ne fi mu toll nii alal dañuy jël di ko financé di ko jox nit yi ñu leen ñuy tagg du seen jëf ñu leen ñuy tagg alal a tax ñu leen ñuy tagg léeg-léeg rek nga dégg ñu ne ah yi da kun kun kun kun kun kun lancal moom dootoo ñemee wax gars yi lancal bari na léeg-léeg nga dégg kilifa goo xam ne day sant sant wu sell génn génn di kaas loo xam ne da ngay xam ne kii dañ koo lancal rek kun lancal moom nga wax gars yi buñ leen lancalee rek ñu wax bokk yi buñ jaay suñ ngor buñ jaay suñ diine buñ jaay suñ dignité alali àdduna jëru ko kenn ku ci nekk sa maam na la gënal lu ne sa maam na la gënal alalu diine ji nga sant mbàkkeeg jóob ak jaay ak jaxate bu mu taxit nga ne ci politique bu bon bii ñu logal la alal ba tax yow ngay wax lu loo xam ne jaaduwul nan sàmm suñ donay maam yi wa alal xalaf an yasuuna asaara salaf ñu wuutu nan sonn nan sàmm seen donay maam yi te bàyyi lu bon lii pañek mu bon mi nga xam ne rek meddi la dara dara baaxu ci suñ ko defee danañ mucc suñ demee ba tollu jamono jooju nag asraatu saa ñëw na beneen bi ci des mooy buñ demee ba sàngara tasaaroo baar yi bari naankat yi bari beneen jumtukaay ngoog beneen bi ci des mooy ñi mujj bu ñu rëbbul njëkk te gis ngeen ko léegi la nga toog ñu naan mag ñi nangam ban defee nangam nangam ak nangam bu sundee ba ñi mujj di rëbb ñu ñu njëkk ña bokk yi asraatu saa ñëw na xanaa kon jamono jooju ci leen toll moo tax ma ne tiit jot na tiit jot na de ku tiitul nag yaa tiitul waaye tiit jot na waaye bu ndee demee ba hôtel bari éberge yi bari tëgg mi bari fecc mi bari yooyu yëpp ay mandarga la yooyu yëpp ñu ngi koy gis ci jamono ji te kenn duñu déet lépp dagan na rek ngay ngay da ngay da ngay mujjaale sax ngay jàpp ne yow lii li ñuy def lépp daa dagan kenn duna déet kenn duna déet te boo nee déet ñoo ne li tax ngay wax déet dee leen wax déet ñi war a wax déet na ñuy wax déet ñi war a tere na ñuy tere ñi war a digle na ñuy digle alxaqu xaqu laa yanqalibu baan dëgg dëgg dong la doon du soppar ñu mukk doon caaxaan ku la rey ci dëgg ba léegi nga shahid loolu rek moo am solo bokk yi fi nii mujjante la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon su ngeen gisoo yooyu yëpp nag ah na ngeen fuglu ñu ne ko lu ni fuglu mu ne de balaa yàgg da ngeen gis ngelaw lu xonq curr wala yëngatu suuf wala muurum jant wala muurum weer ca boobaa na ngeen xam ne kiimaan la ci kiimaanu suñu borom bi ngir adduna xam ne ñu ngi ci asraatu saa xanaa foofu lan toll kon nag mbokk yi maa ngi wax sama bopp di leen woo nañ leen gën a góorgóorlu ca tuubal yàlla bàkkaar yu bari yi ñu def mbonte geeg caaxaane yëpp la suñu borom wax rek saaral fasaada fil barri wal bari bi kasabat ay dinaas li yazuqahum baada alladina amilu la alum yarjiun nee na mbonte gu bon geeg caakaan yeeg njaalo geek naan sàngara geeg pecc meeg tëgg meeg lépp dara waralu ko bi maa kasabat ay dinaas ñu ci bari suñu julli di ñoo ko defal seen bopp ñoo bàyyi fa seen andu nekk dem ci andu jaamur ñoo bàyyi fa leen yàlla waxoon li fa dem jaari fa neen fudi foofu kon julli di nañ xam seen bopp nan xam seen bopp xam leen suñu borom subhanahu wa taala defar beneen aaya bi ci mujj mooy ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir kon bokk yi maa ngi woo sama bopp di woo ci ñu jublu yàlla ñu jaamu ji yàlla ca tuub ca sarxe ca xam ne lii xew ci àdduna bi mu yëngatu suufi yi nga ngelaw yu bari politique bu salte bu bon bi nekk suñu réew mi di Sénégal lu wa ku waay ku am doole jaay ko sama rom yàlla képp moo mooy boobu yàlla képp mu am doole buñ bàyyiwul xel fii li fële lu ñu neex fii def yàlla moom ma nga toog di ñu xaar te ñun ñu ñëpp la audit te kum audit dana la jàpp yal na yàlla dafa dégg ak topp rabbana atina fi dunya hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna al-ijtinab wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz tawil lana 'umrana shahid lana badana وحب لنا رشدا وتوفيق يا الله ودمر كل اعداء تدرب بنا قبل المسلمين يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر شهداء ما شرف من شر العم يا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين امين